ci al axdar yi ba tey ci dars ñaareel mu ne wa yaxrum dana xaraam alay si mukallaf mi alkadibu fen ak mooy wax lu dëgg te ko ñetti fen nag lañ maye mooy fen su kare fen sa jabar ak fen si ñaari numéro waaye waxuñ san nag buy buy yàq fen buy defar moo tax ñuy wax loolu ribat ak jëw jëw mooy nga wax ci ginnaaw nit ki ko neexul may nañ juróom-ñaari jëw tazallam wastaxiz wastaftil waxazir waarif bidaatan fisqal mujahid waarif jàmbatal to tadallam jàmbatal tooñ tadallam jàmbatal tooñ wastaxir xettali ko wastafti laajte waxaddir moytandiko waarif bidaatan bidaa fisqal mi jaay leen kàccoor bi biral ñaari jëw lañ maye wan na mi matu rambaaj nag mooy ki nga xamante ne day jaxase ñaar ñu neexoo fu mu fekk ñaar ñu neexoo rek moom da leen jaxase wal kibro ak rëy wala aj bu ak xaaw wal kibro ak rëy rëy mooy bañ dëgg xeeb nit bëggoo ko la dëgg ba pare yow nit koo gis xeeb ko loolu mooy rëy ak xaaw mooy yéem jëf mooy yow loo def rek ngay bëgg nit ñi gis ko loo def rek naan waaw tey ma def lii nangam ak nangam tey de maye lii nangam ak nangam man maa maye lii waaw loolu mooy aaw riyaaxu ngistal ngistal nag mooy def lu baax bëgg nit ñi gis ko yow saa yooyu maye rek da ngay bëgg nit ñi gis ko walla sooy def dara rek balaa nga kaa mën a def rek ñu nekk ci mbooloo asamaatu déggatu mooy bépp jëf ju baax joo def rek nga bëgg ñu ñi dégg ko wala xasda ak kañaan kañaan mooy ndikki am dara nga bëgg mu ñàkk ko yow nga am ko wala moom mu ñàkk ko yow nga ñàkk ko am na lu ñuy ooyee ñeeta nag mooy nga gis ndikki am dara nga bëgg gaa am waaye ba tey rek yooyu yëpp daanaka yooyu yëpp daanaka langue arabe xañaan la koy ooyee wal boox ak mbañeel mbañeel nag mooy gis ndikki rek bañ ko yow gis nga ndikki rek rek nga bañ ko yow soo sañoon rek toujours muy am jafe-jafe yaa ngi xool ndikki waaye li muy def nii soo sañoon mu am ci lu ko métti yaa ngi xool ndikki waaye saa yoo ko xoolee rek soo sañoon muy nekk ci jafe-jafe muy nekk ci jafe-jafe daal riyaa roxeetul farde ak xool bati ngeneel alal xeer jëm si keneen xool bati ngeneel nag mooy yow koo gis rek jàpp ne yaa gën loolu moom mënta nekk koo gis rek jàpp ne yaa gën am na benn wali yàlla da doon lekk ci benn sën xaj bi di ko bëw mu ne xaj bi bul ma bëw ndax xamoon maa la gën xamoon ndax yaa gën su duggee àjjana nga xam ne yow yaa gën su duggee sax waa juum su ma duggee àjjana ma xam ne man maa la gën su ma duggee safara ma xam ne yow yaa ma gën wala hamza ak piis piis nañ lu ko gars tuddee mooy piis ci bët waaye piis mooy jëw ci làmmiñ wala lamzu ak regeju mooy jëw si bët wala ambasu ak foo waaw ñett fox nag lañ may mooy nga fox ci fett nga fox si fas nga fox si sa jabar soo reetu reetaan reetaan nag mooy ndikki am jafe-jafe nga koy ree wa ak njaalo njaalo mooy nga sëy ku sa jabar nga sëy ku sa jabar wala ku dul sa jaam wa nazaru ak xool ilaa ajnabi jëm si jàmbur bu jigéen daganul ci mukallaf mi mooy xool bëtam jëm si jàmbur bu jigéen moo xam góor xool jigéen moo xam jigéen xool góor ñaar yooyu yëpp daganut wa talad muy bànneexu bi kalaamihaa ci waxam ja ba tey ñoom ñaar ñëpp lay waxal wa aklu amwaal naas ak lekk alal nit ñi bi xayri tiib bakkan lekk alal nit ki nekk bakkan mooy yow nga lekk nga nax nit ki jël alalam te mu leer ko ne ni nga ko naxee nii jël alalam su ko xamoon du la ko jox wala aklu ak lekk bi safaatin caram lekk caram mooy nga mën a dimbali nit ki te doo sonn mu leer na yow mi ndikki jàpp nañ ko pëlis mu leer na ndikki nii jàpp nañ ko pëlis nga ne nga mu leer na yow da ngay wax tijji leen ko rek ñu tijji ko nga ko si laaj xaalis su nekkoon da ngay sonn sax yaay jënd crédit oote jënd si essence waaye yow da ngay wax tijji leen ko rek ñii ñu tijj ko abaa nga ko si laaj xaalis loolu mooy lekk si ràmm waaw lekk si ràmm nag mooy nga mën a dimbale nit ki te sonn nga koy laaj xaalis waaye fekkee nag da koy dimbale te danga ciy sonn moom waaw da ko laaj xaalis parce que sa xàq la aw bi diina walla si diine lekk si diine gi nag mooy nga mbubboo diine nga ñëw rek photo benn jumaa bu ñuy tabax pare nga ne juma ji maa koy tabax laaj ci ndimbal gars yi jox la nga ñëw denc sa poos di lekk wala nga photo ay taalibe na taalibe yi maa leen dundal ah ñu jox la xaalis bu nga dundal nga ñëw tey xaalis yi di ko lekk wa taaqiru salaat ay yéex a julli an awqaatiha ci waxtu ba an awqaatiha ba waxtu ba paase daganul ci mukallaf mi mu yéex a julli ba waxtu ba paase ñaari waxtu nag moo am waxtu muxtaar ak waxtu darru waxtu muxtaar mooy waxtu bi nga xamante ne moom lañu war a julli ak waxtu darru nag mooy bi nga xamante ne ku am gànt rek fa ngay jullee wala du dagan lahu ñeel mukallaf soobatul faasiq mu ànd ak faasiq wala am jaar sal walam togo moom li xayri darbatin sulul lor daganul ci mooy ànd ak faseq wala muy togo moom ci ludul lor wala yitlub du sàkko ridaal maxluqi ngërëm ak ñuñ bindi bi soxtin xaaliqin sàñña aji bi néegi daganul ci mukallaf muy sax ngërmaan nii li ndikki ba merloo yàlla allahu yàlla subhaanahu tudd na mu sellam wallahu yàlla rasuloo moo gën rasuloo ak yonentam alxaq moo gën a yee an yordoo ñu gërëm loo leen yonent bi sallallahu alayhi ay yonentam ñoo gën a yee ñu gërëm loo leen in kaana nam nekk na in na muminu di way gëm in kaanu nam nekk muminu di way xaala wax na ala yàlla nekk si moom musallam mucc la tente mu njëkk a ñi yàlla moo moom ak yon moom ak ay yonentam ñoo gën a yee ñu gërëm loo leen in kaanu nam nekk na nam nekk nañ muminu du way gëm wa qaala wax na ale yàlla nekk si moom wasallam mucc la tente de topp li maxluqin xaaliqil li maxluqin ñeel kuñ bind li maxseetul xaaliqil ci mooy ak bind gi walaay xel dagan loo ñeel mukallaf an yafaala ba mu jëf xaalian benn jëf xataa yaalamu ba mu xam xukmallaahi atte yàlla muy jëf benn jëf te xamul lu si fii ci moom wa yasal ba mu laaj al ulama borom xam-xam yi yasal ba mu laaj ulama borom xam-xam ci mukallaf ni muy def dara te xamul lu si yàlla atte su ko xamul ne laaj borom xam-xam bu fekkee suñ ko waxee du dégg mu dem topp leen luñ def rek mu def ko waaye waxuñ ko nag mu topp ñi nga xamante ne dañuy def leen ñi nga xamante ne dañuy jaamu yàlla moo xam ne wayaxtadi mi roy wayaxtadi mi roy bil mutaabiina ci way toppi li sunnati Muhammad ñeel sunnati Muhammad salla yàlla na jëli allahu yàlla alayhi ci moom wasallam umdol umut alladin mooy gaa yi nga xam ne yet duna lañ tettale ala taatillahi ci topp yàlla

al neen falas ni alladina mooy ñi nga xamante ne daat sànq nañ mooy gaa yi nga xamante ne daat sànq nañ amaalum seen dund fi xayri taatillaay ci topp yàlla taala bu kawe ba fi xayri taatillaay ci topp yàlla taala bu kawe ba ñun falas ni mooy ñi nga xamante ne seen dund yëpp dañ kaa sànq ci topp yàlla de seen dunu gépp dañ ko def ci topp yàlla waaye ñoom dañuy tooñ jaamu yàlla yi bis amal xëy am nag yàlla dafay jël seen lu baax lañu doon def yëpp di ko fay ñu ngi doon tooñ ñu jël seen bàkkaar yi ñu jox leen nga xam nga ne loolu métti na nekk ci àdduna bi di def lu baax nga am yaa nga dem ba yomal xëy am yaakaar ne soo demee foofu yàlla la fay sa ju baax yi nga doon def mu jël ko jox ko keneen xam nga ne loolu métti oh, perte yaatulu bukaay ak guddeeg jooy seen yoomal xiyaam yoomal xiyaam bis yoomal xiyaam ñooñ fale si danañ perte parce que liggéey ci nekk ci àdduna bi di jaamu yàlla waaye di tooñ ñu baax ñi am yaakaar ne soo demee danañ la fay lu baax ñu fay lu bon loolu moom métti na nasalullah ñu ñaan allahu yàlla subhanahu wa sallam an yufqinaa ba mu dëppale ñu sunnat nabina ci topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa bi shafaatin ci ram wa shafaina ak ku ñuy ram sayyidna suñu sang muhammad muhammad sallallahu yàlla na jële allahu yàlla alayhi si moom wa sallam dar si ñaareelu la yem lu si jub si yàlla lu fi baaxul suñ gàtt xam-xam la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa